waaw Omar maa ngi lay nuyu nuyu Sénégal yëpp di nuyu monde entier eh, di nuyu promoteur bi muy Lune Production di nuyu sunu léegi tamit ay sunu partenaire mu Eric Fab eh, ku ne xam na ni dafa ñëw Sénégal Sénégal pour le développement mais ñëwul pour euh, pour récolter pour yóbbu man xam naa si dara. parce que dem naa këram France def nañ ay ay jours ensemble xamante ne depuis quatre ans ou cinq ans doon waxtaan si ay projets yu mel Sénégal kon bu yàlla defee mu ñëw tey Sénégal euh, nekk partenaire ak Lim Production te di sama boppam dafa daan le plus février euh, di wax ni vraiment Eric euh, am na nuyu di wax aussi Sénégal yëpp nañ ko soutenir jàppale ba événement bi incha allah ba réussir ko bu soob yàlla euh, li ma laaj léegi nag mooy euh, ndax euh, combat dama wax ni man gëw li ma gëm mooy hygiène liggéey te defe naa làmb am na ñoo xamante ni fekk nañ ma si bàyyi ñu fekk nañ ma si am ndox ndox bàyyi ñi fekk nañ ma si yàlla jël leen seen ragal yóbbu leen ñun suñu jàmbaar bàyyi wu si dimbalu yàlla la bu ñu si yàlla bàyyee ba léegi nag wax dëgg yàlla amuñu si benn tolloo d'abord dañu sant yàlla si loolu bu yàlla defee tamit ñoom âge bi ba léegi di compétir ay jeunes di def ay loolu sant yàlla la mag parce que ñoo ma encadré ñoo tàggat ñoo may suivre ak sama famille vraiment kon maa ngi leen di gërëm bu baax su ma nee nag encadrement bi su ma jëlee nuyoo bi teg ko si loxo Moussa bii tey ak Mbaye Moussa suñu entraîneur teg naa ko si loxo ñëpp mënuma lim ñëpp mais daal maa ngi nuyu waa Mbour yëpp di wax ni kontaan nañ trop. tey nag dafa am événement yu bari yu mu tombé moo tax mu demee nii ku ne xam ne dafa bëri événement politique yu am voilà moo tax tey affaire bi demee nii mais vraiment bëggoon nañ mu gën a bëri nii mais nii la ko yàlla tudd et le 12 incha allah képp ku raté bi si tey bi. le tout xam ne mooy sport nga man buur yàlla laa te dama ñu bëri naa ñëpp ténor yi si làmb ji ñi dàq xeex ñi dàq bëri ñëpp doole ñi gën a gaaw ñëpp bëri naa ñoom léegi su ma jëlul Tapha Tine kan laay jël damay toog di xaar temps bi mënul ma ko ndax damay def sama carrière. terminé ko en beauté bàyyi ko dem continuer incha allah. ndax mun nañoo wax ne lépp loo xamante ni nga may mayoo war am pour daan sa adversaire mu ngi man su ma du ma jël combat parce que yemuma ñu may nekkal yemuma ñu sa mbokk aussi nee naa la bis ma demee ba sentir nii li ma doon def si wàllu sport ma doon kenn du ma wax ne ma bàyyi man maay bàyyi sa bopp te xale yi may nekkal di ànd nañ ñoom xam nañu bis bu ma demee ba li ma doon def ak ñoom mënatuma ko. kenn du ma ni bàyyi man maay bàyyi sama bopp bu ñu def leen ñu bëri xam nañ ne combat bi nga bëree woon ak Tapha Tine combat bu métti woon na ci yéen ñaar waaye ci yow la gënoon a métti ndax mun nañoo wax ne Bombardier soppi na waajaay diggante ak Tapha Tine ci combat bi. xam nga du si nekk sax di répété répété waat mais combat boobu dañ doon dem arbitre bi ñëwaat dañ doon blessé dem di ñëwaat finalement maa ngi leen blessé arbitre bi combat bi par décision médicale mais bii li ma bëgg mooy si cinq minutes. ñu bëree xeex mu am jël bëgguma ñu décevoir ak supporters yi bëgguma ñu décevoir amateurs yi parce que làmb xale bu machine day soof bu diire day soof mën na diire nag mën na diire mais man li ma gën a tey mooy ñu xeex si cinq minutes bëri si cinq minutes jël am solo ngeen di jaar ba du ngeen xeex est ce que ndëm-ndëm bi ñu am raw loolu xam nga wax naa ko ak des rek kaa ñëw xeex mooy woo man xale man bu may xale sax xeex mooy maanaam boobu man man si am si laaw nga naan ma dinañ xeex ak daw bu daw ak nag ma xaaral yooyu dama naan la sànqal say bàtt si loolu parce que man loolu mooy fekk nee na gar tombe lay def ak yow man xam nga lan mooy gar tombe man bawal bawal la xam naa gar tombe xam naa jur nekk la mooy jur Bombardier Omar Omar. waaw. Euh, euh, liñ la bëggoon a mooy bu Tapha Tine ñëwee woo si mu war la nan ndax yaa ngi pour sóoraale mbapat bi wala déet. non ñun lépp la ñuy préparé préparé nañ xeex préparé nañ bëri bu ñu oowee xeex ñu xeex man sax dama dul xaar may woo ci dara. man dama koy diriger du di ko woo ci lii man maa ñëw tegal samay loi man dama ko ñuy diriger naan naan ma man ba duma diriger de mu war laa wax. déggoo li ma la xanaa. Mm-hmm. dañoo préparé bëri préparé xeex ak ñi ma nekkal. su ma ñëwee maay teg samay loox man ba du ma diriger man. est-ce que loolu du erreur est-ce que ma xam nga dañuy dañuy wax à peu près ay temps xew suba yàlla moo ko mais dama ni combat mën na jeex sax ci minute dama ni cinq pour ñu xeex bëri ci mais man na jeex sax ci une minute waaw bu leer laa la wax. man ma arrangé man amul lu may moytu ci làmb man dama ni su ma demee ba toll si ma toll di am lu may sóoraale si benn doomu aadama lu may moytu naa bàyyi espoir bi dem def leneen. aussi bon maa ngi leen waxtaan ak yow léegi euh, vraiment nga nekk koo xam ne aussi bu revanche la euh, def na cinq revanche di mooy sa sixième revanche sànq ñoom ci loolu waxtaan maa ngi tey jii xëy na xoolante vidéo yi nga xam ne aussi mooy si naa tey erreur boobu tamit aussi tey doo ci delluwaat en tant que professionnel mais naa tey kon li nga war a wax wax bu lan nga mën a assurer victoire parce que li ngay wax fii est-ce que bu boobaa tey aussi moom ngay euh, def heure fële avant ñu xam nañ ma fii laa njëkk a bëree bëri dóor fii laa nekk sama jeunesse fii laa nekk yaroon maa ngi ñu xam ma baaxoon sama jikko man du ma xam ma gëmul lu ma gëmul du ma wax yàlla xam na loolu dama ni su ma nee sànq maa ngi gërëm samay staff bu ma nekkal mooy staff ñoom ñoo lay rectifier combat boo def erreur prochaine combat ñara bu ñëw nga defe nii liggéey naa seen ñoom li dal sama xel am nañ yaakaar bu baax incha allah rabbi le douze yàlla may dam soobee yàlla incha allah quatre vingt dix boobu combat wu Bombardier yëpp ñu ko bëgg a réussir ko ndax kii nañ ci bopp il ne sa quatre vingt dix neuf combat yoo xam ne xale la nga jël sa adversaire bi ne loolu man saa saa ñu dajeeg mbër loolu ay supporter ñoo koy wax loolu góor mënu ko. xam nga xam nga say supporter say nañu mën nañu toog si média yi wax leen neex mais man góor mënu ma góor gi dox si suuf loolu laa mooy dogal lu ko neex si doomu aadama yàlla moo dogal réew mi ko mëpp doole amu fi ku ma mën am. loolu moom bataille psychologique la rek mais xam nga ni kuy dajeeg euh, bombardier say staff naan la ne ko tàppen nga pour merloo koog yooyu loolu wax ji yàqu la man man année bi ma juddu mois bi ma juddu tàppet judduwul année boobu allo. waaw bombardier yaakaar naa dañ leen rek ci parce que gis nañ ne lan yi bëri na ay violence ba tax ñu na ñuy ci sponsor yi journal yi ñu gis ne toujours dana bokk ci mbër yi gën a baax réputation ci làmb bi ak violence. waaw waaw ñi ñi ñi si Modou Niang jaale woon naa ko naa ko jaale waat waaw perte la Euh, mais aussi bala may dem fenn aussi damay gërëm damay gërëm en avance ku mel ni Thioub Thioub Thioub moom xam na xam naa open presse bi daf seen def lu am doole dèjà li may wax ak commandé na ay billets commandé na cinq talons actuellement nii euh, autorité yi si des nag dinaa def sama devoir Cheikh Issa Sall mooy maire Mbour population Mbour ñoo ko def sa def sama devoir naa ko woo ci combat ku mel ni Ousmane Gueye naa def sama devoir woo ko ku mel ni euh, Maguette Sène maa ngi koy woo sama devoir la pour ma woo leen euh, ku mel ni Maître Diouf maa koy woo moom it devoir la pour ma Omar Sy Omar depuis suma carrière yëpp daf si jàpp devoir la pour ma woo ko Pape Diouf maire campement devoir la ma woo li may nag sama devoir parce que damay représenter jeunesse pour ñoom ñu nekk ay autorité war a teg loxo xale yi pour ñu ñëw supporté si kon nag loolu yëpp dama koy jël teg ko sama loxo président écurie bi Pape Sylla auditeur yi koo xam ni Pape Sylla ñëw na contacté la xamal ni sama kàddu la ñëwee nañ jàppale xale yi dimbali leen si ay moyens de déplacement ku mel ni dëkk si dëkk bi bu ñu amee combat def su war a dugal loxoom. Modou Mbengue meeru Ngaparou man dew ma si kenn ne la tax ma defal ma yow. boobu la am njëriñ. dew ma si kenn ne la dimbali mais li ma bëgg mooy ni ñu jàppale xale yi bu combat amee ñu ñu may leen ay kaar may leen ay jigéen ñu dem seetaan mais jubbu moom actuellement moom dafa baatu la ko mooy dafa jàpp sama presse bi def si lu bëri dèjà commandé na cinq tabax. Salou Samb nit nag loolu defal lu baax da nga koy wax à l'avance. jubbu moo ko def da nga koy wax. donc ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne gërëm naa engagement bi yëpp. waaw protocole bi yëpp euh, boo xoolee tey violence bari na xam ni bari daw nañ gën a xale yi xam ne làmb mais am na sama boo xam soo jógee mbuur yëpp jot waaye loolu dafa doy waar c'est la première fois mu takk nga ko jël Dakar lan ngay wax dëkk yi nga xam ne sax du ñu wóor waaye dañoo wóor moom. waaw sama jarbaat la. sama jarbaat la sama xarit la. combat bi yëpp ñoo ko préparé ensemble. may wax ne ko ginnaaw raay gépp mbuur gépp nañ ko jàppale. c'est la première fois mu dugg Dakar si la mu yegg fa. kon nañ ko ñaanal jàppale ko ba tey man su ma demee ba tekki sama njaboot ñu am ay relais ñu mel ni ñoom Diatta Diop ñoom général ñoom Boy Mbour ah euh, vraiment ñoom Santander Ama a ah. ñëpp caméra yi xool ci voilà donc loolu la ko pour suñu arrêté tey am relève boo xamante ne ñoom dinañ mën a dinañ mën a téye a. sa kàddu gu mujj lan la. sama kàddu gu mujj mooy damay remercier bu baax Eric mais Omar parce que vraiment dafa Eric. voilà il est il est bon c' est c' est quelqu'un très spécial. bon bu nga xam ne dama koy joxe ah. oui doy naa ci sëñ bi. voilà disponible physiquement mais naa moo koy

Et euh, je remercie vraiment tout le peuple sénégalais de m'adopter aujourd'hui un enfant de 60 ans ici avec vous. Et franchement, je suis très heureux de pouvoir organiser cette revanche avec deux très gros combattants, des colosses que sont Tafatine et Bombardier. Bombardier, vous l'avez dit tout à l'heure, on se connaît depuis quelques années. C'est des hommes bien, je trouve que Bombardier est un très bon représentant pour notre sport national qui est la lutte, puisqu'il le représente également à l'international en ayant fait du MMA.

que que un pas de volonté, pas d'énergie, pas de force pour nous apporter une expérience et partager avec vous et comprendre un petit peu notre culture. Wow. Et connu les sujets, je vais m'améliorer dans la danse, mais c'est pas évident pour les voir. Je pense que bien. Est-ce que vous pouvez nous assurer que l'on va bien à les capacités techniques pour son ambassadeur ah. Vous savez, vous connaissez tous euh, les qualités physiques et, et euh, l'expérience de Bombardier. Bombardier aujourd'hui a plus de 40 ans. c'est un vaillant, c'est un, un conquérant, puisqu'il a été quand même un des premiers à sortir des frontières euh, sénégalaises. Tafati est un colosse, je l'ai entraîné avec mes équipes pendant plus de 5 mois, j'ai vu ses capacités physiques qu'il avait. Vous savez que Tafati aujourd'hui euh, a, a, a, beaucoup de choses à, à prouver, la pression est sur ses épaules. Bombardier, lui, a cette expérience qui lui permet d'avoir un petit peu de recul et cette force qu'on et ça va être euh, vraiment pour moi impossible de faire un pronostic. parce que vous savez comment on a eu une demi-seconde d'inattention, une mauvaise passe entre ça et l'adversaire peut être assez. Donc tout est ouvert, j'ai confiance dans ces deux hommes qui sont des bons mecs, des bonnes personnes et que le meilleur gagne dimanche le 12 février dans les arènes de Dakar. Merci. Merci beaucoup Omar Omar dafa am loo xam ne nag organisation bi lépp depuis une semaine bii ñu wax Bombardier suñu mbër vraiment. naaj bu tàng bi fii la ñeen doy passé journée bi yëpp fii kon maa ngi leen di gërëm jël nuyoo bi teg ko sa loxo ne ko gërëm naa bu baax waa Bombardier suñu mbër sant naa leen gërëm naa leen di nuyu aussi sama benn sama benn entraîneur bu jógee ba France muy Luc Estienne ñoom spécial pour combat bi donc maa koy sañu baax a baax nuyu naa petite côte bi yëpp nag petite côte bi yëpp bàyyuma kenn le 12 na ñëpp ñëw def mobilisation bu mag ngir dem arène yàlla nañu def incha allah. règlement bu bees bi loo ci wax.